fi atum 2020 ministère de la culture àndoon ceek direction du patrimoine comité scientifique bi waaye tamit waa géej ndaar ministère de la culture jàppoon ni dafa doon lu war ndaxte ceebu jën bokk na ci ñam yi ñuy gën a jëfandikoo ci Afrique saw jant dem sax ba biti réew jéggaani continent africain mu doon ab plat waaye tamit colonial tey jile mu doon ndamu réew mi yëpp rawatina comité scientifique bi bëggoon li ni mel. di fi sunuy maam dem dëpp ko fexe ba moomal ko seen bopp di ko defee noo xam ne keneen mënu ko defee neneen maanaam xarañteef googu moom lañ doon wane ci lekkinu ceebu jën ci toggin wi ci ni muy lëkkalee ay askan yàkkalee ndab bi ni ñu ko daan tegee ni ñu ko doon ni ñu ko daan taajee waaye nag ndam bi nag lu ñu ko may doonut woon lu yomb ndax projet bi ba ñu ko bëggee woon amoon na ay gàllankoor yu taxawoon lu ci mel ni covid 19 ndax bu ñu sukkandikoo ci comité scientifique bi amoon na ay jafe-jafe yu tar a amal ay visite de terrain fi réew mi pour mën a def enquête yi waaye mel na ni loolu doonul frein ngir lii di ceebu jën doon plat national officiel bu Sénégal waaye tamit doon patrimoine bu UNESCO ngir président comité scientifique bi di docteur Massamba Gueye fukki fan ak juróom ci weeru décembre bi ñu tànnee ceebu jën def ko patrimoine immatériel doonut neen. ñu xam ne ñun mën nañoo toog ba ñu xam ne ëllëg lii di laax lii di ndambe lii di euh, kucca beneen ndam ñam bu ne war nañ a la rek ngir sunu lekkin aada yi lekk ak cosaan ñu gën ko ful ci yóbbu ko nag ci daara yi def ci ay conférence def ci ay film documentaire ba mu gën a law ceebu jën bi la nag ñu jagleel ko doomu géej ndar bi di Penda Mbaye tey jilee dana fekk si lii di pizza bu Italie wala couscous marocain bi ci menu international bi jaajëfal euh, bu baax a baax euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñoom jàppale ngir liggéey bi mën a antu di leen jaajëfal euh, mbokk yi ci déglu bi bonne suite des programmes ci rajo Futur Média. Publicité sur RFM. Lancia Auto benn contrat d'assurance ay avantages yu jeex pour yéen bindu leen en ligne dugg leen ci suñu site www.anciaassurance.sn wala ngeen télécharger suñu application NCA Connect ngeen mën a bindu am